jërë ki ñëpp déglu jamono ji di président Macky Sall l'observateur mi ngi ñuy wax ne dana wax ak waa réew mi tey ji woolu na waa RTS di télévision nationale woolu waa ITV woolu waa Seneweb ak waa Soleil national tey ci ngoon bu sept heures jotee ngir wax ak ñoom mu di wax jooj journal bi mi ngi ñuy wax ne ñi koy xaar bari ndax ci la ñuy kañ la war a organiser élection yi ci réew mi est avant le avril gi mandaam di jeex ca lay doon wala après présidentielle ci réew mi ci date bu mu fas yéene jàpp fan yi di ñëw ñëwaat na ci yéene ju am ngir ñu organiser ci réew mi ay élection yu dul boddi kenn ay élection yoo xam ne képp ku ci bëgg a bokk mën caa bokk te war caa bokk ñu bàyyi la nga bokk ci maanaam élection inclusive ba mu ci jógee moom jiitu réew mi l'observateur ne nañu ci la wëlbatiku ci ministre bi ñu dénk wàllu justice ci réew mi nekkoon na taxaw ci matérialiser matal li ñu tàmbali leen a génnee ñu génne leen soleil solo jëmee ko ci ak a dalal dëmm tey jii ci ngoon journal bi nee nañu moom jiit réew mi dana séq waxtaan ak i média yu nekk ci réew mi ca média yooyu ñoom waa soleil national nee nañu ca la bokk journal bés bi le ne ko ci bésub tey bii ca lay doon bu 19 heures jotee média yi ñu war a séqal waxtaan moom président de la république journal bés bi le nee nañu ITV la RTS soleil national ak Seneweb li mu wax démb ministre de la justice moo dina taxaw ci matérialiser république teg na jéego bu am solo jëm ci libération bu Ousmane Sonko Vox Populi gis ci ay mesures yu mu jël laata muy jël kàddu gi tey ji ci ngoon ngir war a wax ak askan wi Le Quotidien nañu président Macky Sall wax na démb ne danañu jàpp datu élection ci lu yàggatul dara waaye li mu bëgg moom jiit réew mi Quotidien nañu mooy organiser d'abord ab dialogue ak i concertation yuy boole ñëpp ci jamono jooju journalisé ko mi ngi ñuy xibaar ni ci biir mouvement national Sall ñu naan leen ay pro Macky Sall di ko dëggal ci xëta mu njëkk ba mu jaral ko mu xëyee fa top Ndeye Saly Diop ak bu Thérèse Faye yéenekaay bi teg ci bind féewaloo mi ngi waaj a am ci biir mouvement national des femmes APR defante baa ngi mel ne tulleeg ci seen ndax ñii dañoo ànd ak président Macky bëgg ko gëm ko ña ca ñoom ne Amadou Ba la wax ñàkk déggoo gi am ci seen biir journal bi ne nañu moo waral ba Thérèse Faye ak ñi mu àndal ñu fi ñu mouvement national des femmes taxawal geneen kuréel gu ñu tuddee mouvement national des femmes APR daanoo ven li waral coow li l'info ne nañu mooy ñu fipp ba génn nee nañu bu ñu dugalee ci groupe bi lu jëm ci Macky Sall Ndeye Saly Diop da ne kii di seen politique bi li waral ba mu jël dogal bu ni mel mi ngi koy leeral ci rekaay bi nee na mooy engagement bi mu am ci wàllu médiation ci dëndub Afrique bi moo tax mu gis ne li gën jamono ji mooy mu tëddee njaaxaanaay bañ a wane tit péetam ci politique gu Sénégal rawatina jamono ji nga xam ne réew mi dafa nekk ci ay ñaaxoo ñaaxoo ay ñaaxoo ñaaxoo dëgg ko bëgg a xam nu muy mel xoolil page 7 bu l'observateur benn waay bu ñu naan o Sonko amoon ñeen fukki at mu àndoon akub dem ci benn auberge bu nekk ca Ngor jataay ba neex waa ji di o Sonko am crise cardiaque ba jaaree fa faatu jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokkeen jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média